lakal fadl ya muxtaar ya sayyidal wara alayka salaamullah ya man maasula asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi am nañu digal ci tubaa Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér ñëw ci Serigne Aboul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem jabootu seeriñ fallu gépp fii ñu toog nag mooy Aliya dëkk bii nga xam ne Serigne lu moo ko sañcoon dël fa doomam ju baax ji nga xam ne mooy sët bi njëkk a nekk Serigne Touba ci kaw suuf muy Cheikh Mouhamadul Lamine Bara borom fanweeri weer yi fecc fanweeri at kenn dootu ko fàtte Cheikh Mouhamadul Lamine Bara nag bis bam bis bañ koy fàttaliku di ko ci ñaanal di ko ci fàttaliku ca Touba Gueye Touba Gueye askanu Touba Gueye gépp nag wëlbatikuwaat ànd ak kii di seen cër ci sëñ Touba di Serigne fallu Mbacke Khady Gueye di Serigne Galas Khady Gueye Alaaji Baara moo ko joxoon digal mu dellu ci ay bokkam dellu ci tund wa waxtaan ak ñëpp safoog ñëpp bis boobu nag la jàpp di ci fàttaliku Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di ko ci ñaanal le 10 décembre ca Touba Gueye kon nag du ñu sori dañuy jox ñi nga xam ni ñoo war a joxe kaddu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen mbokki Touba Gueye ak li ko wër su ngeen déggee sama kàddu xam leen ni bés bi ñu doon waajal agsi na muy le 10 décembre nu war koo waajal nag teerale sëñ bi ay ganam teral leen ay ganam nu génn kër yi jox ko gan yi dalal leen waaye maa ngi koy yëgalitam ñi nga xam ne nii ñoo ay daayira yi nga xam ne dañoo aju ci sëñ bi te maa ñoom na ànd bokk liggéey bi maa ngi leen di soññ ñoom itam ci seen i taxawaay. di ko yëgal itam kilifa gu ñu wax sëñ Saliou tëre ca Thiès di ko yëgal sëriñ Thiénaba Baye Assane Seck di xalif général bu Thiénaba di ko yëgal itam meeru Thiénaba ba sëriñ Talla Diagne di ko di ko yëgal aussi préfet bu Thiénaba. di ko yëgal Abdou Gningue au conseil di woo la wër Touba Gueye nag ak tund woo yëpp di soññ itam ñi nga xam ni ñoo yore daaray alxuraan yi nga xam ne nii sëñ bi lu mu fonk la ca bis ba. di soññ nag itam jëwriñ yi nga xam ne nii ñoom laa àndoon nu bokk liggéey bi lu demee ni sëriñ Alpha Gueye ak géwélu xaadim ak sëñ Omar Diagne mii. di soññ itam waa waañ wa rek jigéen ñi nga xam ne nii macha allah seen taxawaay da daan rafet lool maa ngi leen di sonn ñu gën a góorgóorlu gën a taxaw ca waañ wa loolu daal ci gàttal moo doonoon kàddu yi Touba Gueye li ko wër nag jeexal na lépp bàwuñu kenn ñëpp laa woo. mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha Mbacké Alaaji Baara ñu teew fii tey di leen fàttali suñu jàmbar ji nga xam ni bi mu toogee fii ci dëkk bi. moo fep penc ci sëriñ tubaay yëpp xëttale leen ay goudron di leen fàttali sunu jàmbaar ja nga xam ni ku mosaan a soxla wala sa bët xonq boo ñëwee dugg ci këram gi boo génnee sa bët weex tàll ñu leen di fàttali sunu jàmbaar ja nga xam ni taalibe bu nekk xàmmewu ko woon ak taalibe kii la ak kale ku ñëw rek mu faj sa soxla di leen fàttali sunu jàmbaar ja nga xam ni bu dee bëgg Serigne Fallou ak gëm Serigne Fallou kenn àggu ko ci wax kooku mooy Serigne El Hadj moom moom yi nag moo tànnoon bis bii jox ko Galas Khady Gueye di doomam ni ko foofu di sa néegum ndey nag man nga fay sant sëñ Touba ak sëriñ Fadilu loolu mooy bis bii mu ko jox sëriñ Galas wax ni mi ngi leen ci soññ ci taalibe yi nga xam ni ñoom ñoo yaakaar kër gi ak ñu yaakaar sëriñ Fadilu yëpp ngeen teew si ci bis bi jàpp ci liggéey ba teel a ñëw xam ni bis bi kat du bisam seen bis la yéen ñëpp. ñu yaakaar alaaji baara ak njabootu alaaji baara gu góor ak gu jigéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di yëkkati suñu nuyoo di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Mouhamadou Lamine di ñëw nag ci di wax ci turu njabootu Kër Serigne Abdou Khadir ñëw fi ci turu Serigne Sidi bi nga xam ne moo waroon teewee jotaay bi waaye fekk mu génn mu yebal ñu ne nañ fi ñëw teew. wax ci turu Serigne Cheikh mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdou Khadir ak mboolem njabootu Serigne Abdou Khadir ci tollu ci bis bi nga xamante ni Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi ko yëkkati ñu jagleel ko Serigne Abdou Khadir bisub bisub bisub Cheikh Mamadou Lamine Bara nag buñ ko dee def yëkkati ko jagleel ko Serigne Abdou Khadir yaakaar naa ko xam démb du la jaaxal kon nag bis la boo xamante ni bis bu rëy ci njabootu Serigne Abdou Khadir gépp la sëñ bi waxoon ne bu ndikkee nan soññ mbooleem ko xamante ni yaakaar nga seen seen Abdou ak mbooleem daayira yi ak fédération yi ñoom ñëpp ñu maas ko waajal te xam ne bis bu leen ñor la ndax diggante Cheikh Mouhamadou Lamine ak diggante Cheikh Abdou Khadre képp koo lépp loo xam ne yëkkati nañ ko ci rek yaakaar naa ne ñun ñun ñoo ko ñun ñoo war a taxaw ñoo ko war a taxawal kon nag ñu ngi ciy soññ bokki taalibe bi yëpp eh, di ñaan ñu àgg ci ak jàmm te eh, suñu borom def ci xéewal te mboolem lu ñu fa ñaan lu ne suñu borom nangu ko barke sëñ Tuubaa ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di leen nuyu ci turu Cheikh Baraka mi nga xam moo fi toog jotaay Cheikh Mouhamadoul Fadal ak mboolem ak ay rakkam yëpp bu ngeen gisee suñu toogaay bi na ngeen xam ni bis biñ daan waajur ñëw na ci ndigalu Cheikh Abul Baraka mooy bis bi nga xam ni njabootu Cheikh Mouhamadoul Fadal ñoo koy def fële ci Touba Gueye di ko ànd ak Cheikh Mouhamadoul moom Cheikh Mouhamadoul Lamine ak mboolem njabootu Serigne Fallou yëpp di wax ni rek bis bi ñun Cheikh ñun sëti Cheikh Mouhamadoul Fadal yi muñ bis bu kopp képp koo xam ne lebaloon nañ la ñoo ngi lay ñaan nga ñëw fay ñu ci bis bi képp koo xam ne bëgg nga séqante ñun ab borit ñoo ngi lay ñaan nga ñëw nga ñëw lebal ñu ko ñoo ngi sàkku ñëpp ñu teew ci di sa ñi nga xam ne ñooy daari alquran yi ak ahlul xasida ñu ñëw jàpp ci bis bi ndax bis bisum ñaan la bisub sant Cheikh Mamadou Fadal la ndax sant sant Cheikh Mamadou Lamine mooy sant Cheikh Mamadou Fadal mooy sant Serigne Touba ñoo ngi ñaan mbokk yëpp ñu teewe ko te ñaan ñu suñu suñu suñu waajur yu baax yooyu nga xam ne ñoo jiitu suñu borom taasuñu seen barke te yokk seenu leer wasalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu mbokki jullit yëpp ci turu Cheikh Mamadou Moustapha moom Cheikh Mamadou Lamine ak njabootu Cheikh Mamadou Lamine gi yëpp di julli ci nuyoo bi ak ziar bi saaxibul fadila Cheikh Mamadou Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu borom moom may ko fànn gudd loolu tànd ak wér ci sunu buntu ci Cheikh Mamadou Fadal di Cheikh Abul Baraka di ko ñaanal yàlla sunu borom mu may ko fan wu gudd loo te ànd ak wér ak mboolem njabootug Cheikh Modou Fadal gépp ak njabootug sëriñ bi yëpp ngi sant yàlla bu baax nag ndax daaw moo nu mayoon nu toog fii nu ñaanoon ko bu déwénee nu toogaat fii yàlla defal nu ko la ca jaadu kon moo ñu sant ko te ñaanaat ko bu déwénee ñu toogaat fii ñoo ngi fas yéene yëkkati sunu kàddu nag ca turu Cheikh Modou Moustapha ak mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine ci bis bii nga xam ne ñaare ku gis jataay bu mel nii rek du génn bisu Cheikh du Lamine mooy bis bi ñu koy defal fii ci Aliya ak bis bi nga xam ne ñi ngi ko fas yéene def le 10 décembre incha allahu rabbi ca Touba Gueye sëriñ bi mu ngi ciy woo mbokki jullit yëpp di jiital ci woote bi nag ay bokki boppam mu njabootu seexul xadim di di di ci taftal taalibe seexul xadim yëpp ak jullit yëpp di jiital ci woote bi itam ñi nga xam ne ñooy jàngalekati alquran yi ak jàngkati alquran yi te suñu ne jàng alquran jullit yëpp nga ci biir ndax ki ñu koy defal dundam lépp alquran la woon li mu nekk lépp ci kaw suuf doxinu alquran la doon dox jure yonent bi alayhi ak maam bi tedd jak waaye juróom ba nit nag soo ko dee defal dara wala nga koy fàttaliku da nga koy fàttaliku ci la mu nekkoon muy jaamu yàlla kon sëriñ bi mu ngi woo jàngalekat alxuraan yëpp ak jàng ko ci xaside yi ak ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla di julli ci yonent bi sallallahu di woo bokk yëpp nag képp koo xam ne dégg nga sunu kàddu rek nga tàmbali ñaan yi te bañ koo dakkalati ndax loolu rek la nu ko deseel sëriñ mi ngi ci bokk yëpp nag. di di woo ki nga xam ne it moom la sunu borom teg ci bopp réew mi muy son excellence président El Hadj Macky ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci membre du gouvernement bi rek su ñu tuddee président tudd premier ministre tudd ministre de l'intérieur yaakaar naa ne membre du gouvernement bi yëpp ñu ngi ci biir ndax lii ñuy def kat ñoom ñett ñii ma tudd wala ñaar ñii ma tudd kenn waru leen jiitu ci li ñuy defal Cheikh Amadou Lamine ndax lii leen yàlla may loxob Cheikh Amadou Lamine mi ngi ca kon jaadu na bu njabootu Serigne Bara wootee loo xam ne wooteeb jullit la wooteeb mbokk la wooteeb kóllëre la jaadu na kon ñu gis leen ca gisin woo xam ne dana danañu xam ne kat ñii lii moo tax ñu ñëw bis bi ki ne ko dara jaale moo ko moom moo moom yi weesu moom yi di ñëw mu Cheikh Abdoul Khadir képp ku ku am xam xa dégg-dégg bu gàtt rek xam nga alaaka bi Cheikh Mouhamadou Lamine amoon ak way juróom wu tedd wa Cheikh Abdoul Khadir ñun ñu toog fii ñëpp ba ci mu Modou Moustapha mi xam naa ne mën na cee wax loo xam ne xajut ci jotaay bi muy loo xam ne nag ni ko Cheikh Modou Mourtala waxee rek ku ko dégg du la jaaxal lu rafet la lu jekk la ñoom ñaar ñoom ñoo àndoon waaye bi ñu leen gisut tamit ñaari njaboot yi fi nekk ñu ngi doxal loola rawatina ki nga xam ne moo ko fi nekkal muy Serigne Cheikh ak sunu jur bu baax yu Cheikh Modou Bassir moom ku tudd Cheikh Ahmadou Bachir rek sa xel dana dem Cheikh Abdoul Khadir waaye sa xel dana dem Cheikh Ahmadou Lamine kon nag yëf bu waa kër Cheikh Abdoul Khadir egsee waa kër Cheikh Ahmadou Lamine dañ naan dis ne bàyyi seen yëf ndax seen yëf yi bopp la kon bis bi euh, yaakaar naa ne mënees na naa wax sa bis Cheikh Abdoul Khadir la ndax Cheikh Ahmadou Lamine ak Cheikh Abdoul Khadir kenn ku nekk xam na ne benn lañ kon ñi ngi ñaan mbokk yi daal yàlla yóbbuñu ci jàmm ñu defe ko ni ko sëriñ bi bëggee lépp loo xam ne maanaam jaamu yàlla la bu ñu ca xeeb dara bu ñu egsee ca bërëb ba itam ñu bañ faa nekkee lu dul la ñu fa indi ndax day bari jataay yoo xam ne bu ñu fa eggee rek euh, mbir mën na laa tax a jóg waaye soo egsee jataay bi rek fàttali la la tax a jóg ñaan la ñu wax ñaan nag boo ko boo boo boo boo egsee fañ koy defee danga ko fay def ba na nga fay jógee donte danga ko war di euh, wéyal nag waaye ginnaaw li tax ñuy wala nag moom nga wuy si nanga nga ba nuru loola rek incha allah yàlla na ci yàlla yóbbu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen nuyu di leen siyaar di jiital nuyoo bi sëñ Moustapha am Cheikh di ko ñaanal yàggu ànd ak wér barke Cheikh Mame Lamine di ñaanal suñu waay ba yaar yokk ay leeram taat ñu ci barkeem di leen yëgal bis bi nga xam ne moom la doon defal Cheikh Mame moom la Cheikh Mame Lamine daan def ca ñu ñu ciy woote ci déggalu Cheikh Modou Moustapha mi le 10 décembre le 2022 di ci woo ba suñu mbokki jigéen yi nga xam ne moom lañ bokkal waa seex Mame lemin ak waa Sëñ Fallou yëpp ñu kenn ñu ñaar ñu ngi sàkku seen teewaay te bis ba ndax ñun amul lu Cheikh man Lamine kon nag bu ñu koy defal bis kenn ku ne war naa bàyyi lu mu jàpp ñëw ca ngir jëm Cheikh Mat Lamine di ñaan sëñ Galas mi nga xam ne moo koy taxawee sama borom yàggal guddal fanam te wér ay cëram maa ngi woo mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp aleykum asalaam wa rahmatullahi mbokk yi kon bis baa ngi noonu le 10 décembre lay nekk ñu ngi ci woo ñëpp képp ko alaaji baara Moussa lebal wala ngay fay si bor Cheikh Mat Lamine baara Serigne Moustapha ngi lay woo ci kii nga xam ne moo doon Cheikh Mat Lamine baara te uuf ay rakam uuf taalibe yi toog fii ci aliya doon alaaji moom lañu baara bis ba nag su ñu xëyee dinañ tëj kaamil yi def ko addi alaaji baara ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gépp am na consultation gratuite bu fay xew suñu demee ba ginnaaw tàkkusaan nag mooy doon cérémonie ba nga xam ni ca lay Serigne Galas woo ñëpp mi ngi woo nag mbooleem tund wa xam ngeen ni Touba Gueye ak Cene ba genn la kon mi ngi woo mbooleem umma islam bi nekk foofu yëpp mbooleem imam ya fa nekk ak daayira yi ak jullit ya fa nekk yëpp Serigne Galas a ngi leen woo ci bis bi Cheikh Mouhamadul Moustapha xalifab alaaji baara moo koy jiite ak mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gépp ren nag xam ngeen ni parrain bi mooy Serigne Abdoul Khadir Mbacké ibnu Khadim Rasoul ku ne xamoon ne diggante Serigne Abdoul Khadir ak Cheikh Mamadou Lamine Bara mu ko daan yóbbu ajjuma muy julli ji ca jumaa ji Serigne Touba ji ko yóbbu Makka ñu ànd Makka ci ndigalu Cheikh Abdoulaye Lahat kon nag kóllëre yu bari amaat na ci bis bi kon bis baa ngi noonu kañ lay doon ca Touba Gueye ca wetu Thiès le 10 décembre 2022 ca teewaayu Serigne Moustapha Alaaji Baara ñaan fàttaliku Cheikh Mawlana Bara sët bi njëkk a nekk Serigne Touba